que donc il faut que ñu calculer aussi temps bi waaw léegi dañuy jox lamin mu def ñaan après ñu démarrer incha allah Lamine. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di nuyu yéen ñëpp vraiment ku ci nekk sa tur ak sa euh, ñu def ñaan euh, ku nekk ci euh, diine bi nga xam ne moom nga nekk ñu def ci ñaan. ko defee yàlla jàppale ñu suñu assemblée bi ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil la euh, ñu def Fatiha Faleh ak Naas yi ak salaatu ala nabi yàlla subhaanahu wa taala yàlla na yàlla ubbil ñu jàmm. amiin auzu billahi samii alim min ashaytaani rajim bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil alamin arrahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaka na'budu góor ak jigéen ah donc euh, tey suñu teewee fii dañu créé benn amical bu nga xamante ni.

bon yooyu yëpp mu nekk loo xam dafa metti ba nga xamante ni Mbaye Ndiaye Zimbo metti lu na ko daal ñu si woo waxtaan ak ñun ñun depuis deux ans ñu taxaw ci loolu taxaw ci ak suñuy suñuy jigéen ñu nga xamante ni yu am yu am njariñ ñu ànd ak ñoom di liggéey di liggéey ba journée nga xamante ni tey dañu war a suñu assemblée générale ñu ñu ànd ko ak ñoom invité suñu ay nit ñu ñëw jàppale ñu comme ça ñu liggéey jëm si kanam parce que les mais nous disons rien de faire mais nous avons créé nous, duñ dañuy faire rek dem mais nous avons ba nga faire. nit ko faire des parce que ça fait deux ans nous sommes hein. ça fait deux ans on se retrouvait tous les samedis en réunion même les diasporas diaspora aussi nous parce que seen doole def ko nous ñu ngi panel aussi di si wax seen xalaat xalaat yu aussi il faut nous remercier leen. di leen souhaiter la bienvenue ñi fi ñi nga nous ci bureau provisoire aussi nous dama leen di sant di leen gërëm parce que liggéey bi yëpp aussi ñoom la ah. parce que nous ñu nous ñu ko commencé buntu kër Cheikh mais finalement il vous, arranger ñu une ñëw si école à bi ba def ñu am suñu ay pour en règle nous avons voté ñu assemblée générale pour que nous puissions avancer dem donc lors de le mot tey nous avons bon nañu comme ça nous ñu ñëwee nous ñu Nous sax suñu mais dañ koy legee suñu ay jarbaat suñu ay doom suñu ay nous l'avenir est devant devant eux donc notre objectif nous avons ñu convier aussi avec votre modestie nous avons vraiment en masse de wuy suñu donc def donc pour le moment man la un peu donc j'ai Niaï de, Niaï de Pékin, Niaï de Kikutafi, ancien Benga aussi. loolu la ma yenn ñi sax di xamee mais li may proposé fii règlement intérieur faire jafe lire parce que faut gudd maintenant li may proposé mooy statut bi nga xam ne moom ñu jox en tant que document officiel ñu lire ko wax lan moo nekk ci euh, statut parce que def naa feuille yu bariwul suñ ko liiree légui ñu ubbi ben débat bi nga xamni ku nekk da ngay poser question ci association bi ni muy doxé ak ay questions spécifiques maintenant suñu poser question à ce moment là dañuy wax ni tel article réglé nako wala réglé wu ko bien bu ko réglé wul ñu daal di seet li nga xam nan lañ koy réglé ñu daal di ko ci jéem a nan lañ ko ci ban domaine lañ koy jëlee en charge kan mo ci bokk ak lan lañuy tégg ak lan lañuy def yoy yëpp ngi ci biir président bi lan mooy rôlam association la yoy c'est c'est c'est basique quoi donc suñu xamé statut bi lan lañ ci def rek après ñu ubbi débat ku bëgg poser question nga poser question pour ay clarification nan lañuy dox ak tout ça ñu def ko suñu paré loolu ñu clore loolu

ils n'ont pas attendu ils ne sont pas présents. mais au moins de l'autre côté ils se manifestent. franchement au niveau local pour ne pas laisser de malik, il a eu à faire effectivement sa contribution au tout début. au tout début donc nous, quand même au delà des cartes de membres et des cotisations c'est parce que c'est nous dans nous. c'est la précision que je devais apporter quoi. Hein j'ai. quel est l'autre point de l'ordre du jour Le bureau. c'est juste une démarche. Hein? Rien à dire. C'est possible. On peut ouvrir le débat pour que les gens se réveillent un peu. une partie participation, c'est important. C'est important. Non, hein. Non, non, c'est pas une mauvaise chose, je suis d'accord. Hein? hein On va proposer, d'abord, dans un premier temps, de faire euh, un bureau consensuel nous gën ñuy dem ay élection parce que nous sommes là, sur le bureau donc nous avions un bureau consensuel euh, que ñun ñëpp ñu euh, les les meilleures formules nous mettre ko à l'impasse pour permettre l'activité de ñu démarrer ko euh, vraiment bien maintenant loolu aussi l'un dans l'autre dara yàqu aussi nous avons ci débat aussi parce que comme nous ñi fait, les les gars ils ont assez assez de points peut-être pour discuter ci a un statut bi parce que statut bi li ci que a wax rek que règlement intérieur bi dafa am yu statut mais wax ko mais nous, wax buñ ci yeggee rek on va sortir pour maintenant def ay ay ay ay ay ay ay correction ay éclaircissement quoi donc loolu laa si amoon lu may je crois que suggestion la boo xam ne baax na comme assemblée comme élection membre de bureau bi du yàgg te consensus la ñu demandé bu fekkee ne assemblée bi dina accepté ñu def consensus kon jarul sax ñuy ñu ko yàggal ñu wax li nga xam ne xalaatoon nañ ko pour def ko ñu présenté ko les gens par acclamation on va que que nous ñu valider ensuite nous avons une petite phase bi moo gën a vraiment merci pour ces propos Avec des pistes de réflexion hein, notamment les lettres aux, autorités et ça il faut le noter le président hein, soumettre à la signature du, président pour ça vraiment hein, dégagez dégager des pistes de réflexion pour ça merci pour ces propos Maguette Thioub bi ak assistance bi di leen félicité yéen ñëpp ci déplacement bi ak suñu grand yi toog di leen ñaanal gudd fan ak wér ngeen yàgg ñu jiite parce que mag yu baax lañu duñu tànxam lu kenn lu ñëw ña ca loo xew lu foo dem pikin fekk leen fa kon dañ leen di grand mario ñu ngi leen di ñaanal gudd fan bu ànd ak ya wax la mi ak ñeneen ñi ñëwul ñëpp ak ñi bëgg ñëw ñëpp te mënuñoo ñëw ndax yéen boo leen ñëwee rek ah mel na ne suñu grand yëpp ñëw nañu teew kon sant yàlla rek alhamdulilahi rabil alamin bon ma leen di félicité di félicité bureau bi ak sama bopp ñëpp parce que yéen ñi fi toog li ngeen wax nii dëggale ci bureau bi ñi ay jàmbaar lañu ndax liggéey juddu rek wut kayitu juddu rek liggéey ko niñ ko liggéey pendant deux ans samdi pandémie bi lu mu doon métti métti lañ doon toog sax di toog ay quinze jours wala un mois duñu gisante wala deux mois ñi toujours ñu ngi ci nekk di liggéey bëri sëppi sëpp yi tey jii ngeen gis ñi génn te fonds yi ngeen gis nii ñoom tooguñu rek toog du nelaw seen xel ak guddi beeg bëccëg yépp mi ngi ci association bi ñoom lu ñuy def lu jëmale association bi kanam rek la ñuy waxtaane looloo tax jigéen yi yenn saa yi may wax ni may waxee dina mel ni xaw a ñagas tuuti ma leen di nu sa moroomu jigéen yi parce que jóg ak déplacement xaw na métti trop wante dañuy fippu rek dañuy fippu ndax ñii suñu càmmiñ yi ñu àndal xam nañu fu ñu jëm te lu ñu ñu yéene jàmm lañu kaay leen ñu bokk teralante ku la ko wax da nga war a daw ndax loolu yombul kaay leen lu ñu liggéey ak lu ñu am lu ñu avancé ñu ñëpp ñu bokk comme ni ko suñu grand Malick Ndom waxee ne ay retraité fi nekk ay mag ñoo fi nekk di félicité nag waa diaspora bi yëpp yëpp yëpp yëpp sans exception eh, diaspora bi tey Cheikh Ndaw moo leen fi toogal ndax yàlla moom la def mu tombe fi mu jóge Argentine ñëw tombe ci juste ci assemblée générale kon lu waa diaspora bi seen ngërëm ak seen sant yëpp teg nañ ko sa loxo ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla la ñuy wut foofu yàlla na leen ko yàlla yombalal téye leen seen njaboot aar leen ba ñu dellu si ci dëkk bi di dem ak ñëw ubbi seen wërsëg lu ñu laal yàlla na ci yàlla def barke. may dellu si si sama frère Pape Diop. bi ngay wax euh, suñu frère Mandiaye euh, nombre de kii bi mu yi muñ carte yi ñu jaayal sa 15 au lieu de 10 nee nga 150 000 di di as dit 10 cartes 15 cartes la ñu jaayal carte bu nekk mu jaayee ko 10 000 francs bu ñu xam moom it dañ koy félicité bu baax di ko ñaanal yàlla ndax yéene la nga taxaw ne carte 2500 lay jaay mu ne yónnee leen ma 15 cartes ñu yónnee ko 15 cartes mu ne jaayoo ma 2500 10 mille laay jaaye te ku ma dool li ma jël kon kooku xam ne bëgg nañu avancé waaw kooku bëgg nañu yéene nañ jàmm bëgg nañu avancer comme morom moromam yëpp nekk ci diaspora bi yëpp kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñii ñëw ñu woote ngeen ñëw wuyu suñu wax ji nag xaw na gudd maa ngi jéggalu bu baax jërë ngeen def. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di rafetlu jotaay bi tey di assemblée général bi di jiital ci ñoo bi ñu ma fekk ci président bi ñoom ñëpp. je cite vraiment tous les anciens qui sont là point bi may njëkk wax que la ak parce que li yombul jaamu parce que ay magum qui dara dem benn but boo xam ne moom mooy dimbalante suñu biir dimbali askan wi dimbali ki ñu jege dimbali néew ji doole ji parce que ñu nekk ñu fi ñu am na ñoo xam ni euh, macha allah suñu borom xam na ni mu demee ngeen ni da ngeen di toog pour loolu saytu loolu abi non lucratif ñu di sant di leen gërëm ci loolu di leen ñaanal yàlla lii ngeen jublu tey yàlla na ci suñu borom teg loxo ci barke Seydina Muhammad euh, du ma yàgg nag pour ne pas pléonasme parce que li ma bëggoon wax yëpp wax nañ ko fi damay dolli encore sama contribution rek contribution bi ma ciy dolli moom mooy sama nattaango bi Ousseynou wax na ko c'est très important association bi mujj na judd ci association bi mais moo war a nekk ci association yu gën a jiitu ci association yi ndax turam ak dayoom parce que boo les anciens sportifs de Pikine dafa ëmb lu nekk parce que fii kenn ku ci nekk kilifa nga te am na loo doxal Pikine euh, di wax rek ni am ay ressources yoo xam ne Pikine des personnes ressources yoo xam ne vraiment euh, peut-être euh, xëy il faut que ñu dox leen pour saytu leen pour waxtaan ak ñoom parce que am na ci ñoo xam ni seen koy la toog rek peut-être dañu complexé peut-être xëy na yeneen leen yeneen yittee leen téye mais bu ñu par exemple ben équipe boo xam ne dina mën dem vers eux waxtaan ak ñoom tegal leen li nga xam ne lii moom la ñu jox jaamu yàlla gi nga xam ne moom ngeen nekkee xëy na seen xel dina ci dellu si ba ñu ñëw moo taxoon euh, li Ousseynou wax rek ni ñu créer ben structure boo xam ni dina mën man ma koy tuddee des relations extérieures ñu ñu ñu former benn équipe boo xam ni dina am ñoo xam ne dinañ dem di saytu ñooñu di waxtaan ak ñoom pour prévaloir pour ñu ñëw y compris par exemple tous les maires du département parce que lii bu ko dee def pour ñëpp la vraiment awma dara lu ma def parce que di ñaax sama bopp aussi parce que defe naa am na ñoo xam ni aussi comme man rek euh, lan ci waroon taxaw taxawuñu ko mais li ma fekk nii tey dès à présent que ma ñëw ci ci assemblée générale gis ko ñaan naa yàlla ëpp ci sama loxo li ma ciy teg ci barki Seydina Mouhamad vraiment di ñaanal ñu nekk fii ñëpp di kontaan ñu nekk fii ñëpp parce que fii sumay frère fi nekk sumay grand fi nekk ay connaissance fi nekk yal na leen yàlla dolli jàmm yal na leen yàlla dolli sutura bàyyi leen fi ba ci kanam lii nga xam ne moom lañ ko dëgmal suñu borom yóbbu ñu teg ci loxo ba nga xam ni am nañ ci luñ jéggi suñu jor ci barke Seydina Mouhamad maa ngi leen di remercier ñëpp di féliciter aussi jigéen ñi nekk yëpp parce que yombul ah yombul yombul le temps presse te jamono ji metti na ba nga xamni ne nit ki tal na lu nek bo baye lepp nak pour ñew ni da ngay rapprocher pour dimbali askan bi say say prochain sant yalla góor yal na leen yàlla dolli jàmm ñëpp merci beaucoup jërëjëf encore. sorry mais lu xew fii macha allah dinaa ñew surtout Tassirou Coulibaly nga xamni momay informer yep man nak ma nga ba Thiès ma nga ba Thiès wante amna ño xamni waxo ni waxoon naa leen maa ngi ñëw bu ma am. dinaa leen rendre compte mooy ñoom jigi ak ñoom Ablaye Ndoye man man lañ jabal ma ñëw fii bu mu fi ñëwee nag lu ma fi jëlee incha allah dinaa ñëw wax la wante lii ngeen wax dal na xel parce que man kat fii laa doore sama xel ba léegi mi ngi fi mais fële laa amee teraanga falaa falaa nekk ba léegi mais li ma gis nii ñu koy def nii amul amul foofu waaw amul foofu ku nekk nag maa ngi lay mun ma wax parce que dama kontaan kontaan vraiment parce que am na ñoo xam ne 15 ans vingt ans gisuma leen gisuma leen ëpp na ko ëpp na ko ëpp na ko waaw vraiment man daal tey daal vraiment mënu ma wax daal kontaan naa trop trop man nag. <laughs> bon auzu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turoom ak santam de mu fan la ñu donc noble euh, ñu ci bari di rak Lamine mi la ñu junior à l'USAC de Pikine fi nekk Pafal ñooñu du pour des raisons diverses nekkatuñu dans le milieu sportif soit maladie wala demee noonu donc yal na leen yàlla wéral euh, li may ci wax du du yàgg ndax boo dikkee gis sa ay rakk ñuy def lu jekk doo def lu dul ñaanal leen yàlla ñoom ñu yàgg d'abord te loolu yàgg kon loolu jàpp leen ni maa ngi leen di ñaanal sunu borom ci mbaaxam ngeen gudd fan lool lii ngeen taxawal ngeen bañ ci am benn ne lepp aw ci yoon yalla ko yalla dogal ndax xamna ne lu bax rek la motax ñu xamanté amna ci si ña nga xam ne bi ci carrière sportive bi carrière liggéey lañu nekk lañ ci xam bari na am nañu assez d'expérience mission vous n'avez pas le droit yéen ñi ñëpp ak ñi ñëwul d'échouer ce truc là parce que c'est une mission noble jaamu yalla bu mag la dañuy dañuy and ñun ñi xamone demb pour dimbali waate suñu biir dimbali ñeneen mais il y a pas plus amul lu gëna mag lolu man de vraiment su prétentieux ça dama leen jox conseil parce que yéen yéen yéen ñu wara jox conseil temps yi ah moy moy mooy xam leen yéen ñan ngeen euh, ibe la duñu nako li moy la seule chose politique. on a des contraintes horaires en de temps hein? ok donc li lañ ci soxloon na ku ci nek participer à hein, l'assemblée générale là hein fi la dogal bi yépp ci marche amicale bi fi lay jógee comme il dit. On s'en doutait effectivement parce que le règlement intérieur comporte une trentaine d'articles. Beaucoup de lire, décortiquer, poser des réponses d'affaires compliqué. Les statuts, les documents officiels, parce que même pour les récépissés, le règlement intérieur, statut règlement avec euh, les pièces d'identité et autres euh, euh, procès verbal d'agir constructif. Donc on peut, on peut l'adopter, c'est-à-dire que j'ai juste hein, de lire les statuts et règlements intérieurs, gars noter et on va tenir compte de l'observation du, camarade, hein, c'est-à-dire Ousain, hein. c'est ça, Ousain Djoun, c'est vrai, je vais lire, mais je ne sais Bah, à la fin, quand on se pose les questions, en question du vars, tout le monde noté les questions nous posons que pour gagner du temps. Hein. parce il faut qu'on tienne compte, hein, contrainte temps avec quoi. D'accord Et j'ai fait lecture de. Donc pour le statut, titre. Juridiquement, vous reconnaîtrez, ça veut dire que respecter le justice di wax mais faut may ñaax nit ñi Dom, euh, doom juddu yomb na mais hier ko mu mag nga teg ko ci on a la locomotive elle est là elle tire les wagons en l'occurrence le comité mais damay wax ne dama xalaatoon ñu xaw qu'est-ce que je veux dire par là Moi, au-delà des cotisations et des contributions volontaires ñu jéem a xool genre CRM le comité de recherche de moyens Il xam ne euh, délégué nga xam sa vocation de faire aller comme son nom l'indique vers la recherche de moyens parce qu'on puisse dire moi je crois que suñu une wu si recettes en cotisation en contribution volontaire une euh, association de telle de cette envergure il doit a un peu ses missions parce que moi comme grand malin, nous ni ça ne doit pas être une association euh, parce que vu que nous constitué il faut faire la différence Nous mu faire la différence mu marquer son empreinte nan la koy marqué nous avons def fi différence. xam ne parce qu'au delà de l'aspect social euh, association pour moi c'est une crème ou donc si fi mës une association beaucoup ko jiitoo sax moom dafa war a en quoi faisant En essayant de mettre ici des moyens. Des moyens qui disent qu'à d'un de diaspora. Mais aussi l'expertise locale. Nous avons au niveau local, nous comme moyen jàppale ko association bon fu may terminer mon siège association en général dañu koy am siège mais siège nous lu ñu un a nous avons mooy ñu koy équiper ñu ngi qui seront là-bas pour mu mën fonctionnel comme il se doit parce que su amul am na siège mais amul un matériel mu mën a fonctionner dafay dugg dans léthargie alors que y aura toujours un noyau dur boo xam ne moom moo taxaw même bu nit ñi ñëwul moom mu la locomotive de l'association di ko xëcc vers l'avant gën maa ngi leen di sant di leen gërëm te ñu ñaan yàlla ñu ngi ko formé nii association bi si weeru koor si barki saxul Ramadan yàlla barkeel ko jërë ngeen partage grand bi am lu mu ñu ñaax lu ñu jund c'est que on doit compter sur le développement de Pikine rien ne doit se faire ne peut se faire sans nous kooku nak moy li nga wax mari sank li nga mom do xam jox la ko da nga koy on doit pouvoir peser sur l'échiquier économique politique de Pikine kooku nak pour le moyen daxaar ñoo ko moom ñoo ko jëli euh, parce que xam ngeen rek affaire affaire koor mom guddi yi dafa am nu muy demee doo nelaw lu bari en tout cas ñu ngi sant yàlla en tout cas ñu ngi sant yàlla man maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ba ba yàlla fekkaloo parce que ça fait toutes les générations yu jaar fi essayé nañu lii nit ñi waxtaanee nañ ko defe nañ ko nii jéem nañ ko ça n'a pas marché toujours dina am quelque chose qui arrive bu bu bu bu changé loolu nit ñi objectif alors su ma fekkee lii man ak sama gars yi ñoom Modou ak ñi ñewul ñun dañu war sant yalla on a plus rien à vous dire yéen bu yéen bu yéen xam ngeen histoire bi fi mo leen moy symbole bi terrain central lu tuddoon bi c'est c'est un symbole li rek mo doon unir tous les jeunes de Pikine fi si conditions yo xam ne du leen ko netali parce que vous l'avez vécu yu metti condition ñëw leen fi woon pour pour wut xaliss ñëw leen fi woon pour am liguey ñëw leen dañ fi ñëwoon pour faire du sport

moi je suis je suis très fier de de yéen ñi ñëpp parce que loo xam ça ça ça ko dans les vertus du sport j'ai l'habitude de dire que le sport est la religion. c'est moi Maguette ancienne basketteuse des Niayes de Pékin. bon li ma bëggoon commencer bëggoon la présentation liste présentée parce que gëj naa gis ñu bari xamatuma je me rappelle plus du nom loolu là, bëggoon a ko commencer laaj. pour ñu présenter yu nit ñi ñu xam kii kii parce que gën nañ leen a gis vraiment man sax plus dix ans wala quinze ans am na ñoo xam ne gisuma leen voilà may gërëm Malick ndoom lim wax tam peut-être loolu laa bëggoon wax dañuy toog sunu kër yi gis gisuñu fekkewuñu di bi depuis de vingt 2021 ci WhatsApp bi rek la ñuy gisi ci groupe bi di waxtaan Fadio mii mun na ma seede wala ba wala Elisabeth ak maam bi de sunu mag ju baax jële nga xam ne moom moo ñuy booster ñëpp pour ñu pour ñu wax ma xam ne ñu ngi toog gisantewuñu yéen bureau bi provisoire bi yéen doon def lépp comme ni ko Malick waxee yéen doon def lépp li ñu leen di gërëm rek di leen sant ma bëgg tam présentation boobu moom ça m'intéresse vraiment pour ma xam kii kii ma rappelé wu nit ñi loolu moom yitteel na ma di leen euh, gërëm si lii ñu euh, sumb nii yàlla na ko yàlla eggale Pape Diop li nga wax ci cotisation yi loolu mooy yor amical bo gis wala association bo gis cotisation yi mo len yor loolu tamit ñu ci booster ñep may ci gërëm ba ba ci kanam ba xam la ñuy ma xam bu baax merci beaucoup ok. parce que joué naa tout siraat kon nak li ci des mo pour présentation ñen ñu ma xamul loolu mom motax légui bon pour wax ci vifu sujet bi vraiment li malik Ndom wax. moom laa doon naroon a wax mais dama koy teer mais comme am na ñaar ñu mujj ñëw léegi léegi muy grand Modou Thiam ak euh, lamin ñu répété ko mooy félicité bureau provisoire bi ñuy wax fii parce que ñoom ñoo doon travailler dans l'ombre ñun ñu ne ci kaw ci ker gi ñoom ñu ci naaj bi di def di wax ba récolte liñ fi war a wax fii yëpp vraiment mënuñu lu dul di wax leen félicitation di leen wax jërë ngeen jëf gàcce ngaalaam vraiment mënuñu leen mënuñu wax lu wessu loolu mënuñu leen wax vraiment di leen remercier yeen ñep en plus luma ci yok dal moy comme li ñu élection bureau bi provisoire ngeen man de ci sama xel bu gatt ak sama proposition moy ñu bayi leen ken dawal ben mandat surtout consensus lañu ñu bëgg à part ku ci bëgg retirer bopam ñu waxtaan ci ak yoyu mais pour consensus vraiment man de j'aurais préféré ñun ñep ñu bayi leen ngeen dawal benn mandat provisoire ngeen woon ngeen dawal mandat dem liggéey gën a liggéeyaat provisoire liggéey ngeen li ngeen liggéey suñ leen joxoon mandat je crois que di ngeen liggéey lu ëpp lii parce que lii denkaane rek la woon lekk la woon moomu leen ko woon léegi suñ leen nommee fal leen mooy lu ngeen moom lu ngeen jóg liggéeyal seen bopp ci suma entendement quoi vraiment di leen wax jërë ngeen jëf di leen remercier comme ni ngeen ko waxee aussi diaspora bi aussi leen parce que ñu ngi leen di dégg yéen a ngi wax aussi actes yu ñu def te xam ne loolu aussi bettuñu ci ñoom ñëpp quoi yëpp bëgg rek la bëgg Pikine la bëgg lii ni ko Malick waxaatee rek war nañoo weesu fii kii donc c'est un premier pas lii xëy na peut-être li ñu waroon def lu yàgg yàgg yàgg la yàlla xëy na def na ne fii la juddoo ci ñii la commencé ci ñun ñii la commencé yéen ñii la commencé kon nag ñaan yàlla yàlla na ko yàlla lawal yàlla na lépp lu ñu ciy ragal lu ciy tiit yàlla na ñu ko yàlla dàqal vraiment di wax daal di leen wax jërë ngeen jëf merci encore jërë ngeen jëf. ci ci weeru koor bi ñu nekk den baal ax den baalu ax euh, am naa yaakaar ne soxlawul répétition euh, ñun sénégalais yi am nañu habitude di wax euh, maa ngi wax lii bëggoon naa wax lii kii wax na ko mais maa ngi kiy dolli lii di dolli lii donc je pense que dinaa dépasser loolu li ñu fi waroon wax yëpp wax nañ ko. Je euh, di féliciter le bureau qu'on a installé tout de suite le waxati bureau provisoire parce que suis allé suivre am naa ay réunions ma participer sax mon démarrage bien que j'ai fait l'école buissonnière ñëwatuma ci réunions yi mais gis suis leen suivre de loin je suis bu am solo bi je euh, di rafetlu donc amical bi juddu amical bi di ñaan yalla mu dem kanam comme niko ko suñu aînés yi euh mu nekk association bo xamné amical bo xamné mom moy moom nekk la plus grande amicale que Pikine ait eu à avoir euh, Pikine a pu avoir depuis que Pikine nekk Pikine euh, di di bugg a ñaax rek. Euh, bureau bi ak comité directeur bi euh, ñu xamné li ñuy euh, jaamu mais des générations futures vont en bénéficier suñu nous yi suñu set yi suñu nous bénéficier créer une lu parce que parce que comme ni comme amul amul euh, nit ñi pour dañuy topoto sen sa askan donc c'est quelque chose de très noble Je euh, vraiment suma suma le fait que aussi on que dans dans ce stade là mythique du stade Alassane Djigo Eh, ñu xam ne même Alassane Djigo bi nga xam ne moom lañ tuddee stade bi nga xam ne ñu ngi fii toog euh, moom aussi c' est un ñu fàttali ne c' est un ancien sportif bokk na si suñu mag yi suñu waajur yi nga xam ne euh, ñi nga xam ne ñoo yoroon sport pikin ba yàlla dogal tey sport pikin wa egg fi mu egg tey di rafetlu suñu teewaay suñu aîné yi euh, suñu mag. Euh, Mouhamad Lamine gajaga suñu mag Imaam Doudou Diop suñu mag euh, Mamadou Thiam di rafetlu jotaay bi yëpp ak ni mu demee di ñaan yàlla li nga xam ne ñu ngi koy def fii yàlla dimbali ñu ba mu dem kanam mu réussir ba sut suñu njort euh, ma amoon ñaari rek proposition yi may def bu gaa yi commencé liggéey bi. ñu ñu boole ko ci seen liggéey bi ñuy def wax nañu ne amicale ak association faut déjà penser à avoir un siège boo xam ne du nekk sax siège boo xam ne dañu koy abal walla ñun ñoo koy jël di ko tiin mu nekk siège boo xam ne ñun ñoo koy moomal suñu bopp yàlla dogal na am nañu ay ressources humaines yoo xam ne mun nañ ko am même su fekkee ne c'est pas dans l'immédiat mu nekk lo xam dañ koy bolé ci li nga xam mom lañu wara ñu pour ñu am ko benen bi benen proposition bi moy archive yi nga xam moy le sport pikinois bi mu am depuis mu nek Pikine ba légui kep ko xam lancer un appel je sais pas un appel à à recherche d'archives xawma kep ko koo am nga archive muy ay photo muy ay ay peut-être ay ay images c'est pour les les anciens sportifs depuis si jamono ñom ñom Alassane Djigo ñeneen ñi ñeneen comme ni ko waxé suñu yeneen aînés yi ñu fexé en collaboration avec la commission de de de communication ak ak ñeneen avec une équipe de de de photographes de reporters ñu ñu défar ko bu mu nek liggéey bu mucc ayib.

ñoom grand Issa Fall ñoom grand Mamadou Cham, ils ont yooyu ñu def ko une salle genre d'exposition mu nek archive mu nek ci patrimoine nu amical bi ñaari proposition yooyu daal laa bëggoon def di len sante di len gërem di contane ci jotay bi di ñaan yàlla suñu amical bi y nako ko jëmeul kanam et ensuite encore kep ki nga xamné c'est des sportifs de Pikine parce que amna na ñoo gisuma leen wala dégguma leen daaw ba par exemple ñu ñi ci participer té xam am am xam peut-être amna ay athlètes comme ni ko waxé des at euh, comment dirais des des sportifs astafurlah des karatéka des judoka peut-être des boxeurs ak yooyu yoo ils ont fait la fierté de Pikine peut-être am na fu ñu à travers le monde ñooñu aussi suñu mënee def des recherches de contacter noonu def une bonne communication pour que ñëpp ñu rassembler ñëpp ñu ñëw bokk ci amicale bi pour amical bi jëm kanam maa leen di gërëm den sant Assalamu wa parce que joué naa tuuti siraat kon nag li ci des moo pour présentation ñenn ñu ma xamul lool moom moo tax léegi bon pour wax ci vifu sujet bi vraiment li Malick Ndom wax moom laa doon naroon a wax mais dama koy teer mais comme am na ñaar ñu mujj ñëw léegi léegi muy grand Modou Thiam ak euh, lamin ñu répété ko mooy félicité bureau provisoire bi ñu wax fii. parce que ñoom ñoo doon travailler dans l'ombre ñun ñu ne ci kaw ci ker gi ñoom ñu ne ci naaj bi di def di wax ba récolte liñ fi war a wax fii yëpp vraiment mënuñu lu dul di wax leen félicitation di leen wax jërë ngeen jëf gàcce ngaalaam. vraiment mënuñu leen mënuñu wax lu wessu loolu mënuñu leen wax vraiment di leen remercier yeen ñep en plus luma ci yok dal moy comme li ñu ne élection bureau bi provisoire woon ngeen man ci sama xel bu gatt ak sama proposition moy ñu bàyyi leen ken dawal ben mandat surtout consensus lañu ñu bëgg à part ku ci bëgg retirer bopam ñu waxtaan ci ak yooyu mais pour consensus vraiment man de j'aurais préféré ñun ñep ñu bàyyi leen ngeen dawal benn mandat provisoire ngeen woon ngeen dawal mandat dem liggéey gën a liggéeyaat provisoire liggéey ngeen li ngeen liggéey suñ leen joxoon mandat je crois que di ngeen liggéey lu ëpp lii parce que lii denkaane rek la woon lekk la woon moomu leen ko woon léegi suñ leen nommee fal leen mooy lu ngeen moom lu ngeen jóg liggéeyal seen bopp ci suma entendement quoi vraiment di leen wax jërë ngeen jëf di leen remercier comme ni ngeen ko waxee aussi diaspora bi aussi leen parce que ñu ngi leen di dégg yéen a ngi wax aussi actes yu ñu def te xam ne loolu aussi bettuñu ci ñoom ñëpp quoi yëpp bëgg rek la bëgg Pikine la bëgg lii ni ko Malick waxaatee rek war nañoo weesu fii kii donc c'est un premier pas lii xëy na peut-être lu ñu waroon def lu yàgg yàgg yàgg la yàlla xëy na def na ne fii la juddoo ci ñii la commencé ci ñun ñii la commencé yéen ñii la commencé kon nag ñaan yàlla yàlla na ko yàlla lawal yàlla na lépp lu ñu ciy ragal lu ñu ciy tiit yàlla na ñu ko yàlla dàqal

dañuy waxtaan wax dëgg ci la bu ñu amul xaalis duñu mën a dem amical bi dañ ne solidarité et entraide solidarité et entraide entre les membres cela veut dire que ni ku ci am soxla wala problème amical bi ñëw taxawu la jàppale la te loolu il faut que ñu am des moyens pour le faire si nous n'avons pas ces moyens là ce sera très difficile d'atteindre nos objectifs donc maa ngi leen di exhorter yéen ñëpp ak man sama bopp nous avons fait farlu cotisation mensuelle cotisation mensuelle c'est 1000 francs donc année 2021 avons commencé cotiser nous avons dugg ci année 2022 2021 nous avons cotisé. ñu cotiser 2022 bi bon mi cotiser aussi mais néanmoins je voudrais rappel pour que nous gën ci bàyyi xel parce que 1000 francs boné na eh, baye eh, naa mois prochain na baye mois prochain à la longue day dem ba bari pour nga guen ko day xawa a metti mais boo def chaque mois nga guen 1000 francs doo ko te man wo je suis disponible Il y' a pas de souci bo quelque part mo jot wala mun ngam ko par euh, Orange Money ou Eve, man mo jot ko bin tour et tout ça parce que nous avons à partir d'aujourd'hui, nous élire des commissaires au compte les commissaires aux comptes ñoom un rôle de de de vérifier de nous contrôler de xool xaalis bi fan la nous sommes prêts pour ça donc il y a des détails à maintenir. Nous, nous mënuñu ko pas parce que ce sera trop long les cartes de membres ont été vendues Il y a une centaine donc il y une liste de lire des centaines de personnes mais bu commissaire aux comptes on va sortir toutes les listes soit les cartes de membres, les cotisations de 2021 et de 2022, et aussi les contributions volontaires Contributions volontaires, yi vais ma expliquer ko dafa am ñoo xamante que si ñun lañ bokk dañuy toog ba si il francs nous avons un trésorier Li mako un ci amical ci amical bi ñu jël bind sant ko gërëm ko keneen ki tollu envoyé ma 10000 francs keneen ki tollu fële envoyé 5000 loolu la ñuy wax contribution volontaire boo leen déggool ci statut suñu source de revenu ci yooyu lay donc il fallait que ma leeral loolu avant may dugg ci yenn détails yi voilà. aussi bëggoon naa leen informer d'une chose euh, lors de notre dernière réunion euh, du bureau provisoire nous avons eu après à rencontrer le maire Issa Diop parce que nous, sommes amical, de faire l'autorité sans coloration politique ni rien. Voilà. Nous l'avons rencontré, amical, le et tout ça. sur place, il faut une carte de membre, Il mon bokna. Nous avons une carte de membre. Nous avons une carte de membre. Nous avons une carte de membre. Nous avons une contribution de membre. Nous envoyé 100 000 francs. 100 000 francs, il y a une. La ministre de l'Église, je vais vous pour que yéen ñep ngeen nekk au courant de ça et puis diko sante diko di ko gërëm xam naa dinañ bind une lettre adressée ko ko pour remercier ko voilà donc légui ma ñëw djublu ci euh, la situation financière de deux ASP man ko defar en 5 points point bu njëkk bi moy les contributions volontaires suñu membres euh, des contributions volontaires à hauteur de 535 000 francs. Deuxième point, les cartes de membres. Nous en avons vendu à hauteur de 405 000 francs. Il faut que vous ayez une précision. Tibir 405 000 Il y a membre qui est un membre Il est aux États-Unis. Il s'est engagé à 10 cartes. Donc, ça devait faire 25 000 mais il les a vendus à 10 000 francs, donc nous revenir nous à 150 000. Donc vraiment, on nañ remercier bu parce que bu ñëpp man di Bintaba di Elisabeth kon yëf yi dana voilà donc mention spéciale à Mandiaye vraiment dama bëgg yéen ñëpp bon ñu parce que c'est quelque chose Bon, pour les cotisations de 2021, nous avons aussi des cotisations à hauteur de 405 000 aussi. Pour les cotisations de 2022, nous 164 500 francs Le yëpp le le mu 1 509 500 francs mais nous avons des dépenses aussi Tibir euh, parce que Détaillé aussi commissaire au compte nous avons dit que des dépenses fait un total de 113 000 tout à l'heure nous avons une recette de 1 509 500 boo des des dépenses 113 000 il va rester 1 396 500 francs à la date d'hier la arrêté situation donc les 100 000 francs ils maire amna ay cartes yu ma jot a jaay tey fii yooyu bokkuñu ci aussi prochaine situation ci lañ koy intégrer pour que euh, ñu am une situation exacte donc pour le moment retenez que si suñu kees nous avons un million francs à la date d'hier voilà situation boobu Contre c'est ce que je viens de Compte nos tenues des 100 000. à euh... Vous voyez. Donc, situation bobu, Def, Man, je suis le trésorier général adjoint. Ibaka, c'est le trésorier général. Mais liggéey nañ liggéey bo xamanteni ni ma defal li moom mu def li ak li tout cet argent là nekkul sama poste ñëwul ci poosam lu dañ ko loger dans un compte bancaire pour le moment que ñuy dem suñu jël suñu statut pour dem ouvrir un compte au nom de l'amicale n'est-ce pas donc xaliss bi tay ji buñ ko soxla won banque lañuy dem pour plus de clarté clarté du moins voilà loolu daal la amone ci situation financière bi je ne woon ko assemblée comme ça nous sommes au même niveau d'information je vous remercie. Malik Ndom. Premier vice-président. Bureau global, bureau global premier vice-président chargé de la commission des finances et stratégie. Il y avait Malingdom, adjoint à pourvoir. Arrêtez de vous nous adjoint, comme ça, le bureau sera complètement yeah, yeah. Des finances. Monsieur Malingdom, adjoint à pourvoir. Deuxième vice-président chargé de la commission sociale. J'avais comme président Mbaye, Mbaye Zimbo, adjoint Elage Amoudou 6, Elage Amoudou Sow Troisième vice-président chargé de la commission communication relations extérieures. Il y a président Lamine Soli, adjointe Fatou Diop. Quatrième vice-président, Quatrième vice-président, chargé de la commission organisation. On a Cheikh Diouf, adjoint Momodouba. Cinquième vice-président chargé de l'éthique et de la discipline. Bintembaïba, adjoint Iboudabo. Secrétaire général, Al Hussein Sam. Secrétaire administratif à pourvoir. Trésor général, Pape Ibn Mapendaka. Adjoint, Moustapha Diop. Commission au compte, donc on a pris deux. Oumarou, Oumarou et Elisabeth Ils ne sont pas membres du bureau. Non, non, tu bureau bi là. on avait prévu des postes de conseil. donc on devait proposer Ahmad Diouf Ablaï Narsek et Tassirou Diallo comme conseil. conseil du président. Ils ne sont pas membres du bureau. Ils ne sont pas membres du bureau mais c'est pour vous informer Avec. Donc pour les postes à pourvoir, adjoint, un adjoint pour Marignum. Hmm? Nous, on avait prévu pour la commission, commission des finances et stratégie. Les missions de, de, la Commission des finances et stratégies. Il doit connaître les règles du budget et vérifier si toutes les dépenses n'acceptent pas les prévisions faites. Il donne son avis si la responsable pécuniaire de l'AMICAL est engagée. Il veille à l'exécution correcte du budget. Il est chargé de la politique financière de l'AMICAL À ce titre, il doit travailler à la recherche des ressources additionnelles. donc mor yi li nga bana blanc bana bana blanc ak euh, mario ak grand Doudou wala sax imam lay wax imam Doudou Diop di sant assistance bi yëpp tey seen teewaay vraiment solo di sant encore une fois diaspora bi di wax ne léegi liggéey rek moo si des parce que xol ngeen fi joggé suñu wax ni 2 ans am na ñu woon wax ni du dem la yooyu ba tay def nañ suñu assemblée générale. donc dañuy ñaan yalla mu bañ ñu féewalee té ñu tublu si liggéey bi def lu sérieux suñ ko défé mën nañ ci am ndam comme fi joggé ba yex si fii suñ ko gëmé continuer ko mën nañu yegg fu nga xamanteni sax xëy na xalaatuñ ko won donc damay jël cadeau gi. jox ko imam Dour Diop mu sànni ñaan comme ça ñu tëj. di leen ziar ci daje bii ñu daje yal na nekk daje bi gën ci addaawu weeru koor yi ndax dajale ay nit la ay jullit ak ñépp yàlla sant nanu booloo àndandoo ngeen def fexe ba nit ñépp dajaloo booloo yal nañu ko yàlla suudeel boppam ñu ñaan yàlla subhaanahu wa yàlla bu ci seytaane am cër di wax ni kenn ku nekk ci nun xam nga la nga doonoon xam nga la nga doon def xam nga la nga ca doon taxawe kenn ku nekk ci nun am na foo jaar ak loolu ba ëgsi fii tey lu ci baax xam nga ko lu ci bon yàlla na la ko yàlla jéggal mu nekk rabit bu am naayitul ibaadu ci suñu biir muy deflante lu baax di waxalante lu baax di jàppalante di dimbalante euh, am na ku wax léegi ni ngalawaay na ngeen góorgóorlu kenn ku nekk la nga jël ni maa ko doon moom lañ la nome nga góorgóorlu ci ba duñ la ci wax nga góorgóorlu ci ba buñ la ci soññ nga góorgóorlu ci ba ni ñu amee ci yow ba jox la ko nga ci mu am tan yàlla bu mu am xiiroo yàlla bu mu am nañ ci musal ci cat bu ci kàttanu yàlla subhaanahu wa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni comme temps yëpp dama gëj dugg ci panel bi ndax waxtaan yi may def ci àll bi mooy tax du may sonn su ma ñëwee kon ñu jéggal ma loolu rek ci kàttanu yàlla ñu bokk jàng faatiha nag ko jàngee ba ci nasayinu ñu arrêté wax li nu bëgg jàng fàll xeeg naa si ñëw yeggale faatiha bi ndax dégg ngeen ma ñu jàng faatiha ba ci na sayinu kenn ku ne wax li nga bëgg ak li nga bëgg ci panel bi ñu jàng fàllaxi jàng naasi door a yeggalee faatiha bi bu ñu paree ñu tëj ko ak salaatul faatiha تجيكو صلاة الفاتح اللهم بدرنا بخير لم تزل بأنكم الرحمن يا أيها الناس اتقوا ربكم من هادكم ويدادكم وحبابكم رحمانه يا رحيم كل داعة من سورك رحمن يا رحيم اللهم أنت عافنا بسنة لم يكن أبدا ولا خول ولا قوة إلا بالله العظيم نصر من الله وفتح خريب وبصر المؤمنين اللهم نبيل بخير لم تزل بحقكم من الله وعذاب رسول رب العالمين اللهم يا حبل الخوم وحبل الخد وحبل النزارة كل يوم بسعادك من لم يكن لا خول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك بسؤال عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك الذي بيد الملك ولا كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا رب فتنا ورب حبدا وعدل إدارك يا رحمن يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام جم ستر خير على رب العالمين فاتحة صلاة الفاتحة